alxuraan moom bàyyiwul dara ndax euh, jamono yonente bi sallallahu alayhi wa ku ne xam na ne ay jongante daan da daan am mm-hmm. xam nga ne ñetti téeméeri nit bu nu xeexee ñetti junniy nit ñetti téeméeri man am na mm-hmm. am na lu jarax aay yooyu doon wàcc nag nga xam ne da daan tax xare yi jullit yi di gañe aay yooyu ba tey bépp jongante boo ko def rek am na ci noo koy liggéeyee jaarale jaarale ko ca yoon woowu yàlla mën naa dogal nga gañ a jongante boobu mm-hmm. te yóbbu nañ ci ay nit ba ñu egg fa sori xeeti jongante am na ci bu fekkee lu mel ni maxi la am na ci aaya yoo xam ni nawetaan ni temps bi moom dul may ñu nekk fi di lim di lim aaya yi waaye am na ci xeeti aaya yoo xamante ni suñ ko liggéeyee boole ko xaatim ko ci jëmi équipe yooyu nga xam ni moom lañ waral a jonganteel Euh, bu noppee dañ koy def euh, ci lu mel ni potu Nescafé walla potu potu meew. Mm-hmm. am na xeeti rab boo xam ni day dox dama koy bañ a tudd. Euh, te faral di nekk ci taatu ndaa yi moom ngay booleeg aaya bi def ko ci biir benn biteel wala benn pot. waaw bu ko dugalee ci. pot bi nga tëj ko. damay bañ gaa yaakaar lu ñuul la te man alxuraan rek ci laa jëfandikoo. bu mhm, mhm. ko defee boo ko defee ci ay cas. Mhm. bal bal bu mu dóor ci cas yi. du dugg naaw wala mu jaar ci ñaari wet yi. waaw loolu ak maa ko xam nawetaan yi ñu <laughs> nekkoon si ay see xam naa. loolu soxna boo ko liggéeyee. Ah. noonu ma ko waxee ci aaya yi nga xam ne xeeti kaaraange la ci wàllu jangante. nga boole ko ba mbott moom def ko ci poto meew. mbott mi day dund wala. day dund mais da koy tëj. du dee du dee parce que bu ngeen mi temps rek da nga koy dindi yóbbuwaat ko sa kaaye kaaye ja des. <laughs> bal bu nu dóor maanaam day. naaw mu jaar ci wet yi mais bal bu. mënoo ko def ci kaamam. maanaam ay bal di fa dugg. loolu am na ah, solo euh, loolu loolu moom même même même sunu équipe bu mag bi nga xam ne ñu ngi waajal. mais mais loolu la je sais pas ma xam mën naa ko justifié le fait que bu ñu bi ñu ngi ko bal mu jaar fii wala. non non du mbott bi kese dafa am aaya alxuraan yoo xamante ne pour wàllu. ay secret la kaaraange ci lu mel noonu secret bu fekkee lu ci mel ni euh, boo war a jonganteel. Hmm. borom xam-xam yi daan leen jël bismillahi rahmaani rahim ñu jël benn téere. Hmm. benn kayit ñu bind benn ci kaw benn bisimilahi rahmaani rahim ci kaw bindaat bisimilahi rahmaani rahim ci suuf bindaat bisimilahi rahmaani rahim ci gauche bindaat bisimilahi rahmaani rahim droite nga xam ne day doon genre carré mhm. comme ay mhm. léegi baatu samadu ñu bind ko ci digg bi bu defee saat gi dama koy yaatal équipe bi nga xam ni danga war a jongante ak moom nga def turam ci biir saat gi soo nappee téere boobu nga lem ko ba mu sew. Mhm. nga sëf ko ci lu diis. équipe bi ngay fubalal bu ñëwee dañuy dañuy diis gan. <laughs> dañuy taayal mas nañu takk sama joueur yi joueur bi ñëw ba ci digg digg match bi diir bi <laughs> ci affaire yi la rek. <laughs> lekkul naan dara. waaw dañuy taayal dañuy diis seen yaram day diis duñu mën dara. day mel ni dañuy mere seen bopp sax dañ naan tey lu ma dal. fekk ne fekk maanaam point yi nga def la bu ko defee nag loolu ma ci joxe. Mhm. li ma ci conseillé nit ñi léeg-léeg nga gis ku ko def ab mm-hmm. équipe boo xamante ne sa nawle la mais da nga ko bëgg a gañ rek mm-hmm. léegi sëf yooyu boo paree bu fekkee sax mbër la mm-hmm. mooy bëree la mën nga koo def mais bu jàllee demal nga dindiwaat sëf bi ndax ah. bari na séer yi ñu koy def demuñu fenn séer yi nawetaan yi fu mu ne pour nga gis ci séer bu avancé lu jafe la ndax dañuy defante noonu te bu marché bi jeexee duñ ko dindi waaw waaw bu jàllee rek ñu koy dindi xam ni mhm. kii la woon sport la rek jeex na mhm. beneen bi ci topp muy bu fekkee sa équipe day football mhm. baatu alburaax waaw soo ko bindee attaquant yi ñu def ko ci seen kawas yi dañuy am force attaquant ah, yi waaw bu ko defal défense bi parce que mën naa yokkal gardien yi mu dugg parce que tiiram day am doole léegi danga koy defal kii milliers yi kii rataraar yi ak attaquant hmm. day tax ñu am force bu fekkee baatub euh, tam takka jay sun da ko leen ko da nga koy bindal sër yi tamit koy bindal sër tamit ñu takk ko tam takka jay sun am na ci hmm. lim boo xamante ne boo ko bindalee si euh, attaquant ñu takk ko dañuy bari ay bii bokkut ak nag nga jël sër spécial yoral ko kurus bëgg mu gañe comme ça tey Ah, masalan ñu baal ma tey nga jël Sadio Mané bëgg mu dugal ci maxi bi. Mhm. loolu nag liggéey spécial la boo xamante ne. Sadio Mané moom nga koy werdal mhm. ngir bëgg moom mu am ak yëkkati ko ci maxi bi. ñi nga xam ni tamit ah, dañuy laaj ci wàllu naar bi. ci wàllu. naar bi ñuy joué ci maxi yi. <laughs> je veux pas citer le nom. <laughs> mais Kajoor yow da nga doon joué wala la. <laughs> dama bokk ci ASC yi moo tax. borom naa ci ASC yi laa màggee. ñoom ñoom Wës ak Mohamed ñoom ñooy laaj. <laughs> laa doon bañ tudd rek tur laa doon bañ tudd ñu ngi si suuf ne sa. naar bi aussi nga ko mm. kii. gis nga li ma li ma lim sànq ci wàllu nawetaan. yóbbu naa ci ay nit foofu nga waroon ci ñoom sax. <laughs> yóbbu naa ci mhm. mm. yi moom li ñuy laaj boobu ba léegi sax moo tax ma ñëw ci lii. naar bi waa. naar bi boo koy joué bëgg a Grégoire déglu wëz Bamba aywa <laughs> li ci gën mooy li ci gën boo bañee di perte sa xaalis <laughs> li ci gën ndax am na junni junni nit yoo xamante ne mhm. ñoo ngi ci di jouer ba pare dangaa war a euh, dangaa war a ñu seetal la wax la équipe bi nga xam ne muy féete kaw mhm. daf daa xam ci seet wet goo xam boo ko seetee dangay xam équipe bu jiitu ak ñaata ñaata lay doon waaw da nga koy xam. Mm-hmm. ci ñaari équipe yi boo xamee ñaari équipe yi seen tur ak dëkk ba ni footballé boo ko seetee ba wax équipe bi nu muy demee léegi mën ngaa wax ni muy demee ba pare ñu dippandiwaat maxi bi mm-hmm. loolu mooy waral nga gis ku dem ci sa sëriñ daal ni lam ma wax ak li am bokkul. Mm-hmm. parce que ay junni nit ñoo ci ñaan. léegi tam tam takk jëy suñ googu nit ki bu la ko seetalee ba ne la nangam la équipe bi joué nangam ak nangam mu joué ko mën ngaa yor kurus di werd tam takka jëy moo tax euh, sëriñ bi da koy fay mu seetal la ba pare nga fay ko mu ñaanal la lim la seetal dara bañ koo tourné nga xam ne day boole seet ak li max bi daw lépp muy weer tam takka jëy su mm-hmm. day war a day war a li mu gis dara du ko mën a tourné <laughs> waaye loolu moom ko defal <laughs> mm-hmm. kenn mënu koo tere gaje maanaam du perte xaalisam mm-hmm. lu mu dugal xaalisam ngir ci lu mel ni jangante yooyu yàlla da ko ci defal est-ce que jeex na secret waaw secret jeex na xanaa kay ma joxe numéro bi. Hmm. pour ñi ci bëgg am ay leeral. wala ñi ko bëgg a jouer bu ñu wootee ci 78 530 69 81. man dinaa ko indi sama ASC. 883 18 76. wala nawetaan boo xam ne da ngaa bëgg a dem ku la yóbbu final. Hmm. léegi nag euh, waxaale bi ñu la yóbbu ba final bokkut ak jëlloo la coupe bi. loolu eh, waaw bu ñu demee ba beneen liggéey lay tàmbaliwaat. pour mën a jël Pape la question ba ma posé moom mooy. alxuraan ñaari mbir la wax si alxuraan boo ko tënkee yëpp moom mooy yàlla dafa wax euh, jëfe leen li ma digle. Mm-hmm. di bàyyi li ma tere. Mm-hmm. boo ko tënkee yëpp c'est ça ñaar yooyu. Euh, te yàlla dafa sib ñoo xamante ay jeu affaire yooyu noonu. Mm-hmm. par exemple ay jeu pour gagner ay xaalis est-ce que le nga digalee. lii nii sukkandiku si alxuraan est-ce que nekkul da ngay trahir alxuraan. waaw xam nga afaman moom mu'minan kaman kaane faasixan xam nga alxuraan dafa wax ni ci aaya boobu lu baax ak lu safaan du ànd. Mm-hmm. léegi bi ko yàllay wax maanaam day tere nit ki mu ànd ak nit ku nit ku wut yàlla da koy tere mu ànd ak nit ko xam ni àdduna lay wut léegi nag mënees na ci dëddale sax ñaar ñu ñaar ñu baax. ndax afaman kaani moom it am na liggéey boo xamante ne boo ci defee turu nit ke suur ko mu jëm penku kaman kaane faasixaan am na ci liggéey boo xam boo ci defaatee turu ka ca des. Mhm. suur ko mu jëm sowu ñoom ñaar duñu ànd. Mhm. kon alxuraan même man waxu waxu jeu laa wax le fait que par exemple ngay def dara ngir am si xaalis. loo xamante ne yàlla da koy tere ay jeux euh, ay faux affaire yooyu noonu. waaw comme ça xam nga xam xam fekk nga basé wu si foofu di wax nit yi boo leen defee li ngeen am xaalis est-ce que loolu c'est c'est pas paradoxal. waaw la boo xamante ne askan wi ci boppam ñoom ñoo koy sàkku te maanaam euh, defal leen li li li nu bëgg. jàppale leen ci ñaan parce que déggoo bi ma waxee secret bi dama ne day ànd ak mboot moo tax ma wañun koo tudd waaye kan yoo ko def moom. bal dugg ca kaaya jërëjëf ataa nag léeg nga def loo xamante ne euh, léeg-léeg nga def ko jël sa kurus ni astaxfirullah ndax am na aaya boo xamante ne suñ boroom danaan dee leen ma tooñ te di ma jéggalu ndax bu ñëpp doon jubal yërmaande yàlla du feeñ dëgg la bu ñëpp baaxoon yàlla baaxam du feeñ yërmaandeem du feeñ dëgg la mais pour baaxam feeñ pour baaxam feeñ il faut yenn doomu aadama yi juum mu mën leen a jéggal nga xam ne kii bu baax yor suñu mystique suñu ASC yàlla jéggal ñëpp en tout cas en tout cas dañuy dem coupe d'Afrique équipe nationale A bi moom buy dem moom nañ la yóbbaale ñañuy hmm. boole ca gars yi nañ la ca boole yóbbaale loolu am na ci ay kayfayaat yoo xamante ne sax munuma koo wax fii ci tele bi parce que dafa compliqué maa ngi nii tàmbalee wax lu ndaw. déet kii nii tàmbali di ma. <laughs> di la indil ay problème am na ci yoo xamante ne boo ko waxoon fii kon day day doy waar lool. jërëjëf <laughs> jaajëfal nañ la ba mercredi prochain incha allah. merci beaucoup euh, dig daje donc euh, li mu fi wax lépp boo leen ci bëggee dégluwaat da ngeen di dem si page Facebook 7TV bi émission bi mu ngi fa Keina merci beaucoup. merci à demain incha allah incha allah Duba xanaa ma remercier rek Choupi euh, Beauty bi nga xam ne sama sa partenaire la moom moo may accompagner. ci sama ay coiffure euh, toute la semaine euh, donc di ko jaajëfal bu baax a baax moo ngi euh, nekk fële ca Parcelles Assainies unité si poste de santé unité 26 bi mën ngeen ko joindre sur le 77 687 51 64 di ko jaajëfal bu baax a baax Ndeye Mbaye je t'adore et merci beaucoup pour toutes les perruques sur ce je vous donne rendez-vous à demain inchallah inchallah à demain bonne journée merci beaucoup Pape ba suba ba demain inchallah Kajoor ci yàlla bàyyi ba <laughs> suba ak jàmm. di nuyu oustaz ah. ah <laughs> tout cas à toute l'équipe je suis très heureuse très ravie de vous retrouver yéen ah et félicitations surtout à Kadior ah qui a géré l'intérim avec euh, beaucoup de professionnalisme et toute l'équipe aussi vraiment mention spéciale jaajëfal nañ leen 10 heures ngeen am seen flash d'information 11 heures euh, di ngeen am Sister Maria ak Bira et sa team dans la mi-journée quant à l'équipe matinale ñu ngi leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah jaa